loolu nag ak a fiy bëri penn am na ñoo xam ne xam nga luy seen métier. Mhm. bu leen président fal. Koura 704 d'accord gis naa sa commentaire. voilà bu leen mhm. président fal. waaw bu leen président jox dara. na affiché woog ñoom ñu laal ay quelques photos des fois ñu gis ko. Mhm. wax ni ñoom ñooy doxal président nangam. à partir de position boobu ñu ci exploiter beaucoup de choses. loolu moom ëpp na. bëri na trop trop trop ci dëkk bi ñoo xam ne seen position rek la ñuy use. Mm-hmm. di ko jëfandikoo niñ ko bëgg a jëfandikoo donc loolu bëri ci mais daal lu ci munte am. Mm-hmm. man li ma gëm mooy yoon. Mm-hmm. dana dem jusqu'au bout. ci dossier ku ci taq. dinañ ko leeral. ku ci laale yoon dana topp liggéey mais daal xam naa ne. dossier am bu rupture amul woon. ah. tey du nekk derrière les barreaux. tey du nekk euh, foofu ca kaso ba xaw ma ca. feccakat manuel. Mhm. dossier boobu du su jóg maanaam du jóg sax. war mhm. ah, na jàpp nga ni dossier la bu nga xamante ni peut-être euh, mun na dem ba yegg fu ñu ko foogee wala jàpp nga ni. bien sûr dossier la boo xam mun na am suite du bëri xam nga li tax mën na révéler yeneen affaire jàpp gin ko jàpp mën naa tax yeneen nit yu amoon ak moom contentieux dugal plainte te contentieux yooyu après bul xam ñan lañ ciy tudd ci état bi. comme ça qui se passe actuellement ak Bah Diakhaté bi nga xamante ni. Ah, voilà gis nga condamné gis nga ni plainte yi. mu ngi continué wu di la même chose tam mun naa am ak. doon mais mais sama sama sama xam nga Bah lu mu waroon def waaw mais nit ki mënul nekk ci jafe-jafe yi. génn ko ci boobu jafe-jafe plainte yi te amut ay mbokk yu ko ko digal. Hmm. bi coow amee dafa dem am jàmm waaye maa ko wax j'ai mes preuves ñii naan bajaxate pataas bu tàng la dossier bu tàng la il est un ñoo ko dugal moo ki imaam ndaw imaam ndaw bi ma gisee keroog ay mbokkam génn naan imaam baaluwut waaye leen ne du ngeen mbokkam de yéen ñii bëggoo leen imaam tabaskee këram gis nga pardon jéggalu <laughs> dafa loo xam intelligence a kay def soxlawoo braqué wu ba lor sa bopp des fois da ngay reculer maanaam recul stratégique la ngir génn ci guute gi nga ne. Sénégal seet cher bi fii kër gi ni mu mel kër yi ngay defee émission yi meluñu noonu daal melul nii fii da def émission ay ay oui ay tonton di dugg si di jaabante di def ay gaabalam ay ay ay faram bi di dugg di jël ay écouteur man daal kër gi daal lii moom je pense que ni grand bi war na ci woote ab cap cap dugg génn bi moom lu bees ñun ñun Sénégal ñu ngi la justice mais fii <laughs> Penda sànni na lu ma naqadee ngi nii donc ci lancé boobu avocat am. Mm-hmm. di maître euh, Sall nee na mm-hmm. pour lui. Euh, trois mois c'est la pen la plus euh, cruelle qu'on puisse prononcer contre une personne nee na na nag nee na contre une personne nee na contre une personne innocente mhm. moom bi muy wax ci ay client am mhm. loolu la wax nee na nag dinañu waxtaan ak seen client muy ba jaxate mhm. xool ndax d'accord na pour ñu interjeter appel parce que jàpp nañ ni trois mois yooyu moom da déjà bëri même su fekkee ni sax xam nañ ni peut-être bu ñu décidé interjeter appel balaa trois mois yi sax dina fekk seen client génn mais daal dinañ ko def bu fekkee ni seen client accordé na leen ko sama dossier dama ciy génne maître El Hadj Diouf dama ciy génne maître Amadou Sall. lu waaw parce que dañuy politiquer dossier am utuñu lu régler kaam dañuy ut front bu ñu tirer à la longueur man janoog nguur gi wax ko liñ ko bëgg wax te amuñu fitu taxaw janoog nguur gi. mais waaw mooy li ma la wax ci lañ bëgg a jëriñoo wax liñ bëgg wax nguur gi te amuñu fit bi wax ko nguur gi en door du dossier Bah Diakhaté ut avocat bu sérieux apolitique bind lettre. xoola mhm. Penda adressé ko au premier ministre jégalu mhm. Mhm. man gëm naa ni dana ko defal clémence man moo doon bajaxat noonu laay def waaye du ma taxaw fii jël sama dossier jox ko ay nit yu musta gañ a ñuy wër plateau yi def ma dossier lu ma gën a yàgg ci kaso bi ñu ci gën a tiire ay épingle di ci gën a wax du ko def imaam it damay jël ñii am problème ak nguur gii bëgg ko régler génn naan imaam jéegul man bi ma gisee ñun génn naan imaam baaluwut mais dama tiit Mm-hmm. baa loolu yow nan ngay waxee. Mm-hmm. ñu ne imaam nga. nga xas asgoor charia njëkk a dal sa kaw. Mm-hmm. dama koy wax te du ma taay di ko imaam bu ñu nekkoon réewum charia. maanaam kàddu gi rafetul waaye dañ koy teg ci penc mi caw ko. ndax dafa xas as gor. jiin ko lu mu amul benn preuve. kooku charia daf ne nañ ko caw. est-ce que comprendre. yow nga waat sa yoon en tant que imam. waat sa yoon en tant que citoyen. proférer des accusations. yoo benn preuve. ay nit di war naan baalu woog su mhm. ma doon bàjaaxat daal tous ces politiques dama leen di génneel sama dossier mhm. pour avocat yu sérieux mhm. bind lettre de clémence adressé ko au premier ministre jéggalu ko moo gën ci moom de alors laa xëy parlant toujours de la justice jamono gi ñuy defee li nga xamante ni moom moo di émission bi nee nañu ki nga xamante ni euh, c'est le petit frère de Marième fay Sall. Hmm. moom jamono jëlee ñu ngi koy muy maître Adama Adama Adama Faye. non non non c'est en fait c'est pas un avocat. Adama Faye Adama Faye tout court euh, actuellement ñi ngi nekk di ko auditionné foofa ci dikk man nag maa ngi gis Ngoné Sall. Ngoné Sall def ci ab poste maa ngi message ni Ngoné pour laaj ko. lan mooy lan moo waral ñëwoo ko en attendant euh, ñuy xam lan la mu ne nii moom audition yi ñu ngay woyandi Cheikh bi. waaw xam nga Adama fay bon xamaguma lan lañ koy auditionné mais ci liñ ko tuddoon bi nguur gi di doora falu bëri na. Mhm. Euh, bëri na bëri na bëri na trop sax xëy na fii ak émission bi di jeex. Mhm. danañ ci am ay suite plus d'infos par rapport ak lan sur quel dossier lañ koy entendre. Mhm. ñu ngi toog di déglu. Mhm. mais je me rappelle bi nguur gi di door a falu. Mhm. ay 2013 2014. am na yu ñu ko doon tudd yu xaw a léegi ñu ngi toog déglu xool lan la. en attendant ñu ci am lu leer dinañ ci ñëwaat léegi euh, l'affaire Doro Gueye bi ñu ci jugee ñëw ci condamnation Badiara Imam Ndao as Alassane Fall dafa bokk ci proche Pastef nekkoon kaso. Euh, génn euh, ñu bokk boole woon ko ci li nga xamante ni moom moo ni politique yi jamono ji moom it dafa am ay kàddu yu mu yëkkati. jëmale woon ko ci li nga xamante ni moom moo di magistrat ba tax ñu daal di koy woo euh, daal di koy teg loxo donc ci lu nu mel nag les Diop Taïf et autres sax ñu ngi ci def ab communiqué cheikh bi ma liiral la ko euh, lapi euh, rapidement mm-hmm. nee naa l'attention des juges de la République du Sénégal plus particulièrement le procureur de la République objet demande de pardon et de clémence pour notre Alsane Fall dit Adas Fall ancien détenu politique à Rebeuss chambre 41 mesdames et messieurs les de nous écrire en tant que représentant du collectif des détenus politiques du Sénégal pour solliciter humblement votre pardon et votre clémence en faveur d'Alsane Fall qui a été incarcéré pendant 11 mois suite à sa libération. Il a malheureusement commis une erreur involontaire en proférant des injures à l'encontre des magistrats, acte pour lequel il exprime ses plus sincères regrets. Permettez-nous en tant qu'ex-détenu de vous présenter la situation <coughs> ñu ngi xaatim ab lettre ngir di jégalu ci kàddu yi nga xamante ni seen naataango boobu di Alassane Fall yëkkati na ko ba tax te jii mu delluwaat foofee ci Rebeuss. bon bi ma suivre vidéo ma basé man ci expérience bi ma am ci toog janoog nit mu lay wax soxlaam walla problème am. Mm-hmm. di nga gaaw a détecter ay symptômes yu lay won ni nit ki am na il est un peu wala mm-hmm. dara. Mm-hmm.